asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa ahlul jamaa asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen di faral di seetaan Leral TV Leral point net tey jii ñu ngi fii ci Kaolack Ndangaan waaye ñu ngi fii ci Medina Baye te Medina Baye bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci Baye Niass waaye nag di ko tàmbalee ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax xam nañ ni bakkan gu ñam dund di nga ñam dee waaye tey jii suñuy wayjur suñu wasila suñu sëriñ suñu nit ki nga xamante ne moom moo sori woon ci ñun di Cheikh Mouhamadul Mansour ñas moom moo génn àdduna tey jii nag ñu war koo denc wetu way juram bu góor di Mamour ñas alhamdulilah ala kulli haal tey nag ñu gis ne kanam yi changé na kanam yi ñagas na ndaxte ab naqar la ñu am waaye itam lu ñuy wax rek nit day sabab waaye Allah subhanahu wa taala moom mooy ndogal tey nag dañuy ñëw fii xool ana lan mooy réaction population bi lan lañ xam ci ngóor si nga xamante ne liggéeyal na islam ba dem ànd ak lan moo nekkoon dundinam dinañ ko xam incha allah léegi léegi lay doon ci Leral TV. la alhamdulilah ñi ngi sant yàlla tey dañoo ñàkk lu rëy tey mën nañu wax ne ñi ngi door a ñàkk Cheikh du Mamoun man soo ni mu niroo sëñ ci jëmu noonu la ko niroo ci jikko tey ñi ngi door a ñàkk sëñ Mamoun tey mboolem seede yi damay wax ne danañ ko muñ dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dinañ ko muñ ndax la bàyyi doon wax nañu na ngeen bàyyi xel ci dee nee na képp koo xam ne ba woo xel ci dee maa ngi lay laaj an sa baay baay boobu ana baayam. ñu ngi seetaan vidéo yi nga xam ne mu ngi koy def bitim réew si réewi arab yi si réewi tuwaay bi macha allah. gàtt na fan waaye gàttu fan ndax lépp si yàlla la ko jox waaw bëgg na tarixa tijaan bëgg na taam bëgg na tarixa bi bëgg na maamam cheikhul islam dafa jaayoon ak ndoom jëndee ko taale bi. waaw loolu gis-gis gi mooy cofeel gi ñu amoon ci baayam walla cofeel gi amoon ci Cheikh Ibrahim wala cofeel gi ñu amoon ci maamam Cerno Xasan Dem ku ne xam na guddi kët mi gi nga xamante ne ñu ngi koy def te moom dañ ko taxawee waaye moom it mu doon leen koo xam ne ku amoon njëriñ ci jaamu yàlla yi loolu la ko nit ñi fay. ndax taalibe baay moom yàlla bu la tegee natt da nga koy nangu rek xam ne natt bi moom yàllaa ñu ko jox. di liggéey nag guddeeg bëccëg ndax man damay seetaan ay conférence am ay gàmmam lépp nag mu ne moom dafa jël ndoom gi jaay ko sët gi jëndee ko taalibe. naqar la waaye dañ koy li ma gën a li ma gën a ci ay mbiram ñu ne ñeent fukk ñeent fukki at ak la kon référence la pour ndaw ñi tey atam yi néew na de waaye dundam gi am am na njëriñ. ndax yëngatu na ci wàllu diine yëngatu ci wàllu politique te lu ca nekk rek def na ci lam ca war a def li baayam daan def ba mu fi jógee dara yàqawu ci gannaawam waaye dafa yokk. waaw métti na méttiwut ndax dañu delloo lépp rek dañ koy delloo yàlla ndax dañ ne dee dee moom benn baaxu si bu ndaw moo gën a métti. waaw ndax ndaw mooy fi nga xam ne fi lañ amee yaakaar parce que bay daan na wax mu ne mag ñi waxtaan wi ñuy waxtaan nii mag ñi gune yi ñoo tax mais mag ñi xam nañ lay de ña ngi koy waajal mais gune yi ñoo tax kon nag moom loolu sóoraale woon na bis bii. lim liggéey ku amoon njëriñ ku amoon njëriñ ci jàmm yàlla yi la tey dëdd nañu waaye ma nga dem fa baax ame njëriñ ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla dëkkaleeg Mawlana Cheikh Ibrahim ku bëggoon Baye la. ndax wax dëgg yàlla bu demee ba toog di wax ne nañ ko seedeel ñi ko doon war docteur beeg ñooñu mu ne leen seedeel leen ma ne jullit laa axan seedeel leen ma suma taalibe Baye ak bëgg Baye. ndax dégg nga li magam Cheikh Ibrahim seede ci moom ñu ngi koy jaalee Baye Mamoun di ko jaalee waa kër Thierno Hassane Deme di ko jaalee mbooleem umma bi di ko jaalee Al Khalifa Cheikh Mouhamed Mahi Ibrahim di ko jaalee Cheikh Ahmed Tidiane Cissé al imam di ko jaalee an naatiqu rasmi Cheikh Mouhamed Mahi Ali Cissé waaye di ko jaale mbooleem taalibe Cheikh Ibrahim fu waaye mun di nekk rek ñu ngi leen koy jaale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu